الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi din rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu santee borom bi tabaraka wa taala bu julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ay saxaabaam ak ñoñam ginnaaw loolu ñoo ngi leen di nuyu di wax ne muccug yalla yalla na leen fekk fépp fu ngeen manti nek yalla borom bi tabarak wa taala yalla na nga leral suñu lameñ ubbi suñu dënn yalla na yalla defal len it yéen dégg kon ñongi batay suñu darsu si tombu yu mujjii euh tombu yoy nak wax na ni du tomb yu ñuy jël lu bari ndax dañu bëgg ki koy topp walla ki koy jàng wala ki koy déglu lépp lu mu ci jël rekk mu nekk lu leer waaye it moom mu mën koo jottali comme ni mu ko déggee ñoo ngi taxaw woon ci dars bi weesu ci koo xam ne nii dafa dem ba ci safa ak witar si safa bi nak mu daldi am sikki sak ndax mom si safa la nek wala si witer la nek borom lax dari ni bu amé sikki sak fofu rek ràkk bi mu am sikki sak ndax mom witer lay def wala mi ngi si safa moy nako def safa su ko defé su paré mu daldi koy sujootal baada salam su paré nak daldi ñew indi nak ràkk witeram fofu lañu taxawon muy wa sajada baada salam suma awtara léegi nag lii beneen masala la waaye ba ba tey mi ngi ci safa ak witar waaye ngi nii dafa julli ba pare def safa ak def safa waaye nag diggante bi muy bëgg bi muy def witar wax na fi te wax jooju teyu ko maanaam dafa juum amaana def na safa ba sëlmal am ku doon wax mu tontu ko walla mu juum daal di wax te diggante boobu euh, dañ fa sip koo xam ne nii day wax si diggante boobu boo defee sa safaa daal ba sëlmal da ngay jóg rek kàbbar def sa witar waaye bul waxtaan si diggante boobu te bul fa wax léegi nag ki loolu dal te dafa juum lan mooy àtteem wala moom moo ko tey lan mooy àtteem mu ne wa man takkal la ma koo xam ne nii dafa wax bay na chaf si diggante safa wallu watri ak witar saa yéen te fekk ni moom dafa juum mu ne kooku day fala shay alayhi déet dara di ko ci war maanaam juumte googu mu juum wax si diggante safa ak witar te tayu ko mu ne loolu dara waru ko ci du ci amit benn bàkkaar waaye su fekkente nag moo ko tey mu ne sib nañ ko gis nga lu lu la dara warul te kenn sibu ko ak lu la dara war te ñu sib ko wala wala lula dara warul te ñu sip ko ñaar yoy wuté nañu kon yow na nga fexé ba di jëf jëf ju ñuy sip ndax bu fekkante ni da nga julli sa faa witar ba pare bëgg wax masalan tay sëlmal nga ci safa bi rek sa téléphone daldi, di sone nga daal di koy jël wuyu ki ngay wuy ba pare Daldi di teg téléphone bi daldi di indi sa sa witar mo ne loolu su ni dang ko tay Lalu sib nañ jëf joju nga def ndax wax nga sa digënté bi kon li ligan li gën moy bo defee sa safa di wala def sa witar sa téléphone sone bayiko fofu ba indi sa witar ba paré nga soog ko jël xol ko loolu nak bari nañu muy dal surtout nak légui si jamono téléphone yi nga xamné ne waxtu wu jot ni nit ñi ñi ngi woté mo tax mo né wa in kaana su fekkee ni dafa nekk nag amiran di ko tey kuriha sib nañu jëf jooju mu def wala wax jooju mu wax waaye wala shay'a alayhi déet dara nag di ko si war wal masbuuqu wa in adraka ma al imaami aqalla min rak'atin fala yasjudu maahu laa qabliyan wala baadiyan mu nekk ki nga xam ne moom dafa dabe mooy wal masbuuqu ki ñëw fekk imaam kàbbar ba pare mu daldi koy dab mu ne in adraka su fekkente ni dafa dab ma al imaam yi mu ànd ak imam bi akal la lu gën a néew min rakaatin si rakka maanaam bi muy ànd ak imam bi fi mu ko dabee loolu moom moo gën a néew rakka mu ne kooku bu boobaa bu imam bi defee njuumte si julli gi war a sujjóot mu ne boobaa falaa yasjudu moom du sujjóot maahu ànd ak imam bi ndax li mu dab imam bi moo gën a néew ràkk maanaam kon matul ràkk matul ràkk kon moom fekkewul rukkoo bi aqalli min ràkk ndax ràkk ndax ràkkaa mi ngi façon si bu bu imam rukkoo rek ba siggi ràkk boobu fasu na léegi nag yow dangaa ñëw kàbbar fekk imaam rukkoo nga daal di kàbbar fekk ko si rukkoo bi léegi imaam def na njuumte war a sujjóot xabla te yow li nga ko dabe moo gën a néew ràkk lu gën a néew ràkk nag mooy kon yow ràkk boobu yow bokk nga si waaye lu tuuti nga si ànd moo ne bu boobaa fala yasjudu du sujud maahu andak imam. La qabliyan du sujudu qabla wala ba'diyan du sujudu ba'da mune su fekante ni nak yow da nga sujud andak imam te fek ni yow njuumte lolou yow bokko si bu yau lan moy atep julli bi nga julli moy julli yow yow ma'mum bi top ci imam su julli yakuna lol nak dafa dafa jara Euh, xàmme bu baax a baax mooy danga ñëw dab imaam loo xam ne nii bi nga koy dab loolu moo gën a néew ràkk moo gën a néew ràkk kon mooy yow fekkewoo ràkk bi wala moo gën a néew ràkk yow bi nga koy dab booba yow yaa ngi ko dab si rukkoo bi ànd ak moom siggi imaam def na ak njuumte ci julleem kon yow amoo benn rakk ak imaam bu boobaa yow lan moo la war mooy bu imaam day sujjóot sujjóot boo xam ne dafa juum bul ay bul ci ànd ak moom ndax yow amoo ak rakk imaam benn rakk. yow danga koy bàyyi ba mu sujjóot ba pare bu sëlmalee nga daal di jóg yeggale sa julli bu fekkente nag dafa sujjóot nga ànd ak moom bu dee xabla salaam nga ànd moom wala baada salaam nga ànd seeg moom bu boobaa yow julli googu yàqu na yow dangay ngay daal di jóg daal di liqaam daal di kàbbar daal di julliwaat sa julli moo tax mu ne in adraka su dabee ma al imaam yi ànd ak imaam aqalla lu gën a néew min rakatin si rakka mu ne boobaa falaa yasjudu du sujjóot maahu ànd ak moom laa qabliyan du sujjóotu qabla wala baadiyan du sujjóotu baada mu ne fa in sajada sujjóotee nag ma maahu ànd ak moom batalat yàqu na salaatu julleem mu ne wa in adraka su dabee nag rak atan rakka kaamilatan bu mag sëkk maanaam da ngaa dab imaam <coughs> waaye ànd nga ak moom si julli gi benn rakk bu mat sëkk nga ànd ak moom <coughs> <coughs> kon moy ci bir julli gi yow and nga ak mom ci ruko bi kon am nga rakka aw aksara wala sax lu ko gëna bari ñaari rakka wala ñetti rakka and nga ko imam sajada maahu al-qabli bu Imam de sujud sujootu qabla te fekk ni imam dafa joom ci julli gi war sujud sujud bo xamni ni qabla la moy dafa wañi ci julli gi de ko diko ko sujootal qabla te yaangi ngi ak imam te bi ngay ànd ak imaam am nga si benn rakk wala lu ko gën a bari moo ne bu dee sujootu xabla da ngay ànd ak imaam sujoot ko mu ne sajda dafay sujoot ma ahu ànd ak moom alxabliya sujootu xabla wa axaral baada baadiya mu ne bu dee bu dee sujootu baada nag da ko yéexe maanaam du ànd ak imaam sujoot ko bi imaam sëlmalee rek moom day jóg yeggale fekk imaam a ngi sujoot baada salaam ak ñi mu àndal moom day yeggale. su yeggale ba julli ba pare nak daldi mom moom sujjóot baada salam waaye du and ak imam di sujjóot ak mom baada salam qabla salam rek lay and ak moom sujjóot ak mom xawma ndax lima wax fofu leer na wala dit moy ñew nga Imam nga ak imam ben rakka si julli gi dab nga ko si ruko bi am nga si ben rakka wala am nga si ñaari rakka wala ñetti rakka bo si amee mom ben rakka rek imam di sujjóot qabla salam si julli gogu ndax dafa joom wàññi di sujjóot xabla salaam te yow bu imaam sëlmalee da ngaa war a jóg yeggale ràkk yi mu la raw waaye am nga benn ràkk ak moom mu ne bu imaam day sujjóot xabla salaam da ngay ànd ak moom si xabla salaam bi bu sëlmalee nga jóg yeggale sa julli su fekkente nag imaam li muy sujjóot baada salaam la moom dafa yokk si julli gi di sujjóot baada salaam te yow dangaa ñëw dabe am nga ak imaam benn ràkk wala ñaari ràkk waaye daal ala xaal am nga ci imaam benn rakk mu ne bu imaam day sujjóot ba àdda salaam yow bul sujjóot ànd ak moom da ngay jóg continuer sa julli yow bàyyi imaam sujjóot ba àdda salaam ak ñi mu àndal boo sëlmalee nag ba pare nga soog a sujjóot nag sa ba àdda salaam moom lay wax ne wa in adraka rak atan bu dabee benn rakka kaamilatan bu ma sëkk aw aksara wala lu ko gën a bari sajada na sujjóot maahu ànd ak moom imam alxable sujjóotu xabla wa axara na yeexe nag albaad ya sujjóotu baada xataa yu timma ba mu matal salaatahu julleem su matalee julleem nag moom mi nga xam ne moo doon dab imaam bu ko defee nag fa yasjudu mu sujjóot baada salaam yi baada salaamam mu su mu sujjóot ko léegi nag moom dafa sujjóot ànd ak imam baada salaam te dafa war a jóg yeggale julleem te loolu moo ko tey lan mooy àtteem mu ne fa in sajada su jóotee ma al imaam yi ànd ak imaam amidan te fekk ni moo ko tey batalat yàqu na salaatuhu julleem maanaam imaam dafa war a sujóot baada salaam te yow dangaa dabe su imaam sëlmalee da ngay jukki yeggale sa benn rakk bi mu la raw wala sa ñaari ràkka yim la raw te danga ko waroon a yéexe bàyyi ko moom mu sujjóot ba salaamam yow nga jóg yëggale sa julli lool nga waroon def defoo ko nga ànd ak moom sujjóot ba salaam boobu te yaa ko tey loolu la wax ne soo ko defee sa julli day yàqu moo tax mu ne la fa in sajada su sujjóotee maal imaam yi ànd ak imaam aamidan te fekk ni moo ko tey batalat yàqu na salaatuhu julleem waaw su ko tayul nag te fekk ni moom njuumte la maanaam ñàkk xama tax wa in kaana su fekkente nag saa saahiyan dafa juum tayu ko lu muy def boobaa sajara dafay sujjóot baada salaam ginnaaw bu sëlmalee day sujjóot baada salaam maanaam ànd na ak imaam sujjóot baada salaam waaye tayu ko waaye bu sëlmalee dafay sujjóot baada salaam parce que tayu ko bu ko tayee nag julleem yàqu na kon gis nga foofu kiy dabete ñiy dabe julli ñi si gën a bari nañuy dabe julli léeg-léeg duñu ko xam fan war a fekk imaam ànd ak moom duñ ko xam dangay gis koo xam ne nii day ñëw daal di taxaw fekk imaam a ngi sujjóot muy taxaw di ko xaar ba imaam jóg mu soog a kàbbar ànd ak moom déedéet boo ñëwee rek. kabaral rek sa kabaru armal dugg ci julli gi fekk imam fa mu nek boko fekke mu tok tok and ak mom. soko fekke mu mu sujjoon nga sujjoon and ak mom soko fekke muy taaya nga taaya and ak mom su fekkente ni ràkk bobu and nga ak imam si ruko bi si nga bok bo si àndul ak imam si ruko bi bokko ci bu imam pare rak bobu dang koy fay kon lolu moy sew-sew yooyu nga xamne mo am ci diggante bobu su ko defee dañuy taxaw fi ba ñew sunu benen dars bi ñu leeral li ci des di ñaan yàlla nañu yàlla defal dégg topp wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima